dalee nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyandoo yéenekaay gii di réew mi quotidien l'observateur vox populi stade record enquête walfajri yéenekaay yëpp xëy dikkal ñu ci ndam lu rëy li nga xam ne équipe nationale bu Sénégal ni ki démb daan na koy am ci kanamu Tunisie yéenekaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamal laa ñu match bu dof la seetaan ni ki démb diggante Sénégal ak Tunisie ci demi-finale waay waaye nag Sénégal moo ko mujjee gagné benn bal dara waaye nag ñi nga xamante ni ñoo doon seetaan boobulee match daal maanaam stress dinañu ko seetaane ndax bi nee na am na ñaari penalty yoo xamante ni daan nañu koy raté ci biir match a kaay gi mu ñuy xamal ñi nga xam ne nag ñooy waa ñoom ñoo njëkk am nag ab penalty waaye nag ki nga xam ne mooy góol bi di Alfred Gomis moom nag moo ci génne équipe nationale bu Sénégal waaye nag Sénégal moom tim daa di am ab penalty ginnaaw bi ñu gaañee ki nga xam ne mooy Ismaïla Sarr ci biir surface de réparation yi waaye nag ci biir noonu ci la ko Henri Saivet daa di dóor raté boobulee penalty journal bi di réew mi ko dëjee mu ñu xamal laan ñu en am ba des moo donc enquête VAR bi moom moo daal di sauver équipe nationale bu Sénégal ndax bi ñu demee ba sa cëppaandaw ga bi di waaj a jeex ki nga xamante ni mooy Gana Gueye moom nag dafa am bal boo xamante ni dafa dal ci loxo bi arbitre bi daal di tiré li nga xam ne maanaam mooy penalty ginnaaw nag bi nga xamante ni ñaxtu nañ mu daal di dem xool li nga xam ne mooy VAR bi ci la xam ne du penalty journal bi bu ñu xamal nañu jamono jooju nag ñi nga xam ne ñooy loolee bi mu gagné Tunisie daal di dem nag ca final ba moom ak Algérie bi mu nekk ñaareelu yoon boo xam ne équipe nationale bu Sénégal maa ngi koy dem ci final Coupe d'Afrique l'observateur mu ñu xamal nañu ci biir réew mi ak bitim réew fépp ab Sénégal nekk rek doon na wane li nga xamante ni maanaam mooy kontaanteem yéen kaay gi mu ñu xamal nañu njiit réew mi di Macky moom nag ni ki démb ci stress bu rëy ci la Macky Sall seetaanee match bi ginnaaw match bi ba mu jeexee moom njiit réew mi kor mareem génn ci mbedd Ndakaaru yi wane kontaanteem ba pare nag di woo askanu Sénégal kirifal diine yi ak ñëpp ñu daal di nag nekk ci ginnaaw gaynde yi journal mu ñu xamalaan ñu moom njiit réew mi nag maanaam dàqul benn yoon dem ca Égypte seetaani final ba waaye nag jël ay supporters yu bare bari daal di leen di yóbbu tribune yéen kaay mu ñu xamalaan ñu Sénégal nag fukki at ak juróom ñaar muy doog di demaat ci li nga xamante ni mooy finalu Coupe d'Afrique si Kamara moom nag muy jaajëfal Aliou Cissé mi nga xam ne mooy entraîneur bu équipe bu Sénégal di ko wax bravo yéen kaay gi mu ñu xamalaan ñu Alfred Gomis gomis moom mi nga xam ne nag ni ki démb moo ci génne équipe nationale bu Sénégal wane njàmbarte dëggantaan moom nag la ñu daal di tabbu homme du match Kalidou Koulibaly journal bi mu ñu xamal ñu moom nag du daal di football li nga xam ne mooy final bi ndax nag ci quart de finale yi dafa amoon carton ak ci demi finale yi waaye nag moom Kalidou Koulibaly nee nag mbir mi daal naqari na ko lool mu bañ a jàmmarloo ak ñi nga xam ne ñooy waa Algérie ba Kalidou a jongante yéen kaay gi xamal naa ñu final bi nga xamante ni moo war a dox diggante Sénégal ak Algérie ajjumale bu 19 heures jotee Les Échos ñu fekk fa Pape la mu xamle nee na final bi nga xamante ni moo ñu fekk fa Gana Gueye moom nag la mu xamle nee na wan nañu njàmbarte dëggantaan seen diggante ak Tunisie te nag final bi ci boppam moom mooy raw Aliou Cissé moom nag la mu xamle nee na li nga xamante ni nag moo gën a jafe moo nekk ci seen kanam ndax moom Aliou Cissé Cissé nee na diggoon na équipe nationale bu Sénégal yóbbu leen finale coupe d' Afrique ba pare nag jël ko jamono ji loolee rek la daa bëgg Alain Giresse mi ne ay jamono doon na entraîné équipe bu Sénégal moom nag moo doon entraîné ni ki démb équipe nationale bu Tunisie moom nag nee na jamono ji daal Sénégal la faral te nag bu sañoon Sénégal dafay jël coupe bi ci kanamu Algérie nee na mooy supporter bu njëkk tribune yéen a kaay mu ñu xamalaan ñu gaynde yi nag daan nañuy jot seeni ku nekk lu toll ci fukk ci a démb manifestation yi xumbaay bi rumbaay bi maanaam bari won na fi lool waaye nag jëyya am na ci liberté 6 maanaam benn xale bu góor boo xamante ni oto moo ko mbëkk mu daal di ñàkk bakkanam vox populi waa Algérie ñoom nag la ñu xamle nee nañu bu ñu janoo ak askanu Sénégal maanaam danañu def seen kem tan ngir jël coupe bi nag daal di koy yóbbu Algérie yéen kaay gi ñu fekk fa Krépin Diatta moom nag la mu xam xamle nee na jamono ji nag jël ku bi rek la ñu bëgg daal di nag dugg ci taarixu football ba tey yéen kaay gii du l'Observateur ak L'As ci parti démocratique sénégalais bi nga xam ne jamono ji ñoom ñoo ngi waajal li nga xam ne mooy élection gox goxaan yi nee nañu danañu am seenub liste bopp te nag képp koo xamante bëgg nga saa bokk si seen ginnaaw ngay daal bootu ba tey yéen kaay gii di Les Échos mu ñu xamal ñu Abdoulaye Wade ma ngi jàjj ñi nga xam ne ñooy ay ñoñam maanaam di leen di ñaax pétrole ak gaz bu Sénégal Thierno Alassane Sall ak Mamadou mu xamle nee na mbirum Aliou Sall ak gaz bu Sénégal bi nga xamante ni ñoo ngi koy ngawte ngawtee ci réew mi ñoom nañu ko gérer nee na dara baaxu ca yéen kaay gi de laas mu ñu xamal ñu coowul tësatu góor jigéen bi nga xamante ni moom la ñu joxar bi baaraamu tuuma ki nga xam ne mooy Waly Seck moom nag tey ji ak baayam danañu jano ak taskatu xabaar yi a ci ay tontu ba tey yéen kaay gi mu ñu xamal ñu nawet bi daat nay commencé diwaanu Kaffrine nag nam fa commencé neexul dara ndax taw bu bëree bëri boo xamante ni daan na kay taw ci li wër Kaffrine ba tax ñaari xale yu góor daal si ñàkk seen bakkan